ma ngay jàngale alqaaria bis penc ci lay tekki saar yi moom dafa xaw a raglu saar wu ñëw gën a gën a tàng yàlla ne alqaariatu bis penc ci mal qaariatu ana lan mooy bis penc ci ndax tuddee na ko qaaria day fëgg xoli ci ak tiit wa ma adraka mal qaariatu ana lëf lu màgg lan moo la xamal bis penc ci moomu ngay wax mu ne yow ma yakoonu bis la boo xamee dana nekk annaasu nit ñi kal faraas ba mel ni que ay luppa lupp al manfuusi yoo xamee ni nii dañ leen a wisaare nit ñaay gëlëm duñ xam fuñ jaarati ba mel ni ay njéeréel yu wisaaroo kenn xamul foo jëm wa takoonu dana mujj al doj yi kala ihni ba mel ni ki witteen al man foo si ba de buñ wulli suuf si nooy nekk foofa de buñ fa xegee fa amaa man daal képp koo xamee saqulat diis na mawaazinuhu lañ ko màndaxaal ci aw xiiw lañ ko peeseel maanaam lu baax la daan lu baaxul la fa huwa moom mooma fii iisatin dana nekk ci dund raadiyatin ba de buñ gërëm dundu dañ koy gërëm waaye du gërëm majaas la wa amma man daal képp koo xam ne xafat xoyof na mawaasinahu lañ ko peesal te mooy mandaxam lu bonam la hëpp lu baaxam la fa ummuhu dëkkuwaayam haawiyatu mooy safara mooy safara wi gën a métti ci safara yi haawiya la tudd mooy darkul asfal mu ngi koy firi wa ma adraka ma ana lëf lu màggalan moo la xamal maanaam maa haawiya lan mooy mu ne naarun safara la haamiyatun wu tàng lii mooy haawiya kon nag mooy darkul asfal inal munafiqina fi darakil asfal min an naar darkul asfal mooy haawiya mbooleem safara darakaat la fu gën a jege suuf gën a tàng kal bi gën a jege suuf gën a tàng mooy haawiya foofa nag la la la maanaam weddikatu yàlla yi dëkk ëllëg yàlla nañ ci yàlla musa ak munafiqina yi